asalaamaaleykum mbokku internetu 24 actu ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ànd bi ngeen di ànd ak saa su nekk comme ni ngeen ko taamoo rek di ko saa su nekk muy seen entretien nekk na émission boo xamante ni kenn dootu leen ko présenté ci seen site bi di 24 actu ndaxte taamu ay kàngam yoo xamante ni kenn du leen laajteeti ci mim réew tey nag ki nga xamante ne ni moom lañ nar seqal waxtaan bi mu di Bassirou Gueye nekk responsable politique AFP au niveau de Touba nekk tamit ci ginnaaw ki nga xamante ni moo di Alioune Sarr di ministre du transport aérien ko Cheikh mu daal di nuyoog mbokk internet di koy seetaan Basiru nuyu naa la. jërëjëf auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi bu sant yàlla bu baax bu ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ñaanal xalif général bi mooy Sëriñ Muntaxa Jëm Fall ñàkk lool tëwër ndax ku ñu bàmbali maam Cheikh alors ñaanal suma sëriñ Cheikh Ahmadou Rafa Mbàkke Fall ñàkk moom it lool tëwër di ñaanal mboolem internet bi nga xam ne ñooy suivre 24 bi jàmm bi sax baax na ñu ngi ñu Thierno également aussi sa caméraman. merci beaucoup Bassirou gis ngeen comme ni ma ko waxee sànq moom mooy responsable AFP au niveau de Touba bu bëggoon tuuti rek nga ñëwoon ñu ci AFP ak liggéey bi nga xamante ne ñu ngi koy amal ci département bi. voilà jërëjëf euh, di la sant bu baax ci question boobu comme ni nga ko waxee man responsable politique AFP la nekk ci région de Diourbel mais plus précisément dans le département de Mbacké mm-hmm. it euh, au niveau de Diourbel mm-hmm. ñu am fa suñu sœur koo xam ne moom vraiment jàmbaar la fa mm-hmm. yàgg lool ci parti bi muy Diarriatou euh, Sarr xam ne tey moom moo jiite mix bi fii ci région de Diourbel yëpp alors ñu am aussi suñu doyen suñu kilifa suñu lépp depuis 1999 bi Moustapha Niass créé parti ba nëga ni ñoom ñu ngi ci di doxal man ak moom ñu bokk nekk amandoo ñaari yoon ay mandat au conseil régional de Diourbel moom Alioune Ndiaye mu nekk mag mu baax di kilifa doon koo xam nit ku uufal Moustapha Niass njaboot gi ci département bi voire région bi euh, am aussi Moustapha Silla nga xam ne moom moo jiite les jeunes au niveau de la région de Diourbel am aussi suñu sœur Ami Cheikh Yaba Diop ancienne députée moom it di jàmbaar jiite jigéen ñi ci région bi yëpp yàgg lool ci parti bi moom it di ci def ay résultat yu am solo alors comme ni nga ko waxee nag AFP au niveau départemental ku ne xam na ni à pas de géant la fiy dox ndax boo xoolee depuis que élection yi di fi am ba nëga ni AFP deuxième rek lay jël xëy na yàlla moo dogalagul mu war a jël premier alors ñuy profité ci occasion bi aussi di sant bu baax euh, suñu frère suñu camarade de parti le maire de Sadio Lamine Top actuel au conseil des collectivités territoriales nga xam ne après son départ suñu beneen frère moo ko succédé ci mairie bi muy Sidi Ndiaye nekk Sadio nga xam ne Sadio moom bastion AFP la comme ni AFP nekkewaat léegi nii ci xolu doomu aadama yi ci région de Diourbel bi yëpp voire même au niveau national ku ne xam na ne AFP dafa dugg ci xolu doomu aadama yi léegi bu baax a baax ndax euh, boo amee un leader boo nga xam ne dafa mel ni Moustapha Niasse mu nekk euh, un homme d'éthique un homme d'engagement un homme de valeur un homme boo nga xamante ni tey ji dara ñoru ko lu dul Sénégal jàpp naa ni booy wër nit koo xamante ni warees na ko sopp moom dana bokk ci ñi nga xam ne kenn du leen teggi ndax comme niñ koy waxee nit ñaa ngi naan mag la mais mag mu am expérience ak fi Sénégal toll baax na mu jege njiitu réew bu mel ni président Macky Sall moom it ndax engagement yi mu am pour le Sénégal nga xam ne AFP donc au niveau départemental doon na parti boo xam ne comme ni ko xale yi daan waxee du ñu caaya du ñu silib ci yëf yi mais caaya lañ. caaya ngeen si ba loolu tax moo tax ñu gis ne dafa mel ne da ngeen a bootu ci ginnaaw euh, APR nga xamante ne nii bu ne waaw rek ngeen ne waaw bu nee déet ngeen ne déet waral loolu. non du waaw ñu ni waaw du déet ñu ni ndax entre AFP APR parti socialiste LDR Yeesal FNP force nouvelle patriotique ñoom ñëpp. pour ne citer que parti la là mais il y a d'autres partis politiques il de a également aussi ñoom ñëpp c'est des partis politiques yoo nga xam ni euh, bu ñu fàtte ni ay assises nationale dañ fi mosoon am ci jamono yi Ablaye wadd di nekk ci pouvoir bi assises nationales yooyu bi mu amee la président Amadou Mokhtar Mbow jiite woon ko bi ñu tënkee jafe-jafe yi nga xamante ni moom lañ jàpp ni moom moo gàllankooroon Sénégal ci jamono boobu ci la ñu waxtaan te loolu it na ci sénégalais yëpp. féliciter remercier ci aussi le président Moustapha Niasse ndax ci jamono boobu moom moo préfinancé woon assises yooyu pour ñu mën a càmbar doxalinu réew mi ci secteur yëpp bi ñu demee ba gis ko loolu bokk na ci li gënoon wane ni kon kat jot na une alternative am pour barrer la candidature de de de du candidat Ablaye wadd en ces temps mais également aussi pour xool nag yan matuwaay la ñu war a jël pour un Sénégal meilleur. ca loolu ca la président Macky Sall bi mu demee deuxième tour te ñoom ci seeni chart dañu waxoon ni bépp candidat bu dem deuxième tour sans wadd Wade danañ la jàppale. mais ndax Macky mas naa def benn déclaration wala dara loo xamante ni waa waa AFP d'accord ci ginnaaw bootu leen ci ginnaaw. au fait non parce que li ko indi mooy moom avant tout ma daaneel ci loolu ba pare bi président Macky Sall demee deuxième tour ak président Abdoulaye Wade mais i est allé les assisards muy ñooñu ma la limaloon ay Amadou Makhtar Mbow ak ñëpp quoi ba ñu waxtaanee mu xamal leen ne dama bëggee bu ñu gañee on gagne ensemble on gouverne ensemble gagnons ensemble gouvernons ensemble loolu moo indi bi yàlla dogalee ma Macky gagné mu jël l'Assemblée nationale dénk ko la président Moustapha Niasse ku ne gis liggéey bu am solo ba mu fay liggéey kon l'Assemblée nationale c'est une institution la présidence est une institution kenn ku ci nekk téye la nga téye le haut conseil bi ko Ousmane Tanor Dieng di yor mu nekkoon beneen institution kon ñoom ñu war di pencoo ay nit nag bu ñu fekkee dañoo yor destiné am réew bu ñuy pencoo kenn ku ci nekk da ngay joxe xalaat ba ñu synthétiser ko xool la ca baax pour réew ma ñu doxal ko te loolu nag la président Moustapha Niasse ne lépp loo xam ne décidé nañ ko ci réew mi wala lépp loo xamante ni yaakaar nañ bu ñu ko defee dana amal Sénégal njariñ amal ñëpp njariñ danañu ko def loolu nag mënta ànd ak ñu waxtaan waxu biir nekk tënk génn ñu naan baaxul ñoom ñu taxawaat ni baaxul wala dara déedéet du demee noonu dañuy waxtaan ci biirub néeg ba juboo door a génn la ñu tënk ñu defal doxal ko pour Sénégal. kon AFP lay doxee. bien sûr que parce que mënoo maye bopp rocci làmmiñ ay nit lu ñu bokk mais kenn ku ci nekk boo ci joxee sa xalaat. moo tax leen di jiiñ naa ne ngeen nekk bu ñu nee waaw ngeen ne xam nga xam nga xam nga AFP. mënul nekk un parti légalement structuré am ay structure un peu partout dans le Sénégal am ay structures yoo nga xam ne dañu nekk à l'étranger mais kooku nan ngay jékki-jékki rek seeyal sa parti ab ànd bu fidèlee lu ne mën nga ko ci léegi AFP dañu fidèle ci wetu Moussa ab Macky Sall depuis ñu wax ko ni ko gagnons ensemble gouvernons ensemble moom mu wax ko ñu doxal loolu gisaguñu lu ci changé mais jarut ñun ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy tendre ay pièges ñun bokkuñu ci genre parti yooyu parce que suñu leader bokkul ci genre nit ñooñu. d'accord léegi AFP moom ba rôle la joué ci Covid 19 bi. xam nga man déjà yaa ngi may wax ne ñu ngi lay gis ngay def ay sorties. man bu ma defee sorte def communication def sensibilisation mais c'est Bassirou gay mais Bassirou gay également aussi en tant que citoyen mais Bassirou Gaye en tant que responsable politique d'un parti dans un parti politique loolu moo waral loolu la ca des nag au niveau national la nga xam ne au niveau central suñu lider ak suñuy ministres yi nga xam moom lañu am dans le gouvernement ñu ngi koy def loolu it du loo xam ne ñoom dañ koy def ba pare wëlbatiku génn ñoo koy def mais mënoo am un général ci benn ci guerre général bi jiitu di dox yow nga bëgg a daw jiitu général bi yow da ngay lijjanti di jox général bi général bi di communiquer pour ñu xam ni kat général bu gestoo dana xam ne yaa ngi ci wetam mais jarul ñu naan dañ fa def li Moustapha Niass ak la mu séq ak président Macky Sall la ñuy doxal du yàgg ba Moustapha Niass wax ko parce que moom xam na li ko war ci réew mi xam na it li koy xaar ci réew mi parce que c'est un Sénégalais wax na moom Bassirou daal dina leeral seen diggante bi nga xamante ne nii sénégalais ñu ngi leen ko doon wax naan dañoo nekk si ginnaaw Macky indi na ci ay leeral bu baax a baax wax naa ko sànq sa diggante ki nga xamante ni moo di Aliou Sarr ñu gis na yaa ngi nekk si ginnaawam ban relation ngeen am yéen ñaar waaw kooku suma xarit la même bu dul politique yàlla mooy boole ay nit muy suma xarit c'est vrai xamante nañu woon mais nag nit ki loo ko gën di jige mu gën lay jige ngeen di gën di xamante ci lu baree bari gis nga dañ naan diw gor la xam nga doon gor yomb na mais xam nga lu jafe gor su gore doon gor diw gor la yomb na mais gor su gore moo jafe te le ministre Alioune day gor soo xam dafa gore ndax ñaar dama ko natt ci moom muy benn liggéeykat la te yàkkamtiwul te ku fonk kilifa la ku amit kilifa la ku amit ay teggin la te dafa am mag mu baax mu ma daan wax naan muy sëñ Baara Doli xale bu bëggee doon mag day topp ci ginnaaw mag lu mag ma waddal mu for ko su yàggee mu doon mag te ma gis ni Alioune Sarr mii nit ku dal la yàkkamtiwul dara ci àddunaam gis nga boo àndeek moom di doxal da ngay jàpp ni sax moom dafa gëmut li muy def wala dara mais fekk na engagement bi muy am ci mbir ak maanaam ni mu koy càmbare ba man ci def résultat yow mi nga xam yaa ànd ak moom sax des fois mën na la dépasser ndax temps de patience am nit bu patient wee lu ne mën na ko am ci àdduna te genre yu mel noonu dañu waroon a bari Sénégal moom genre yu mel noonu dama ni dañu waroon a bari Sénégal comme moom bokk na ci ñi Sénégal soxla. mais moom dañ koy gis souvent li ñu koy gis Touba bariwul de lu bëri moom dafay yónnee yu ni mel. discrétion moo dépassé ñëpp sa discrétion moo dépassé ñëpp. Alioune Sarr mën na fi dugg ba génn te kenn du ko xam parce que lu muy jëflanteeg nit rek ci kóllëre la koy jëflante ndax du ko def ci côté politique de côté politique il son parti politique mais comme muy ñëw di wane ne maa ngi ñëw def déedéet moom day préférer ñëw dans la sobriété ka mu séqal seet si ak teraanga ak la mu jëflanteeg moom entre nit da koy jëflante ko ko ba mu jeex mu dem ñibbi kenn du ko xamal dara mais bari na fi kilifa yoo xam ne fii ci dëkk bi su ma leen doon lim fii du jeex ñoo xam ne ay wëllëreem lañ parce que ñaar tax na ndax fekke naa ñaar wax ko ni ko sag dal sab yar tax na ñun ñu bëgg la donc bu ci dollee nag doon jàmbaar ji mu doon doon liggéeykat ndax ku ne gis na ni bi gouvernement bi taxawee ak léegi euh, de 2012 à nos jours bien avant loolu 2012 ASEPEX la nekkoon ci période bi ñu door a former ce gouvernement là il était à l'ASEPEX bi mu fa jógee ñu nommé ko mu nekk le ministre en charge du commerce jàpp naa ni jamono ba mu fay ne ba ba mu fay jóge yow xam nga ni marché bi dara yokkuwut bâtiment ya daan daanu ndakaaru lépp mu taxaw ci ba ñu normaliser la faire ba teg ko ci ay normes yu wóor ba bâtiment yi nga xam dañ daan wàcc wàññeeku bu baax déggatuñ ko sax d'ailleurs booleeg li nga xamante ni liggéey na ko ci zile kaf bi ba bi muy dem jóge foo jëm tourisme transport aérien mu dénk mu jox ko rakkam bi ñuy def passation de service ak lépp muy asom Aminata Diatta moom it que je salue au passage alors mu nekk l'état c'est la continuité moom it mu ñëw àggali ko mais également aussi les accords de partenariat économique ni mu ko piloté woon yooyu yëpp mu nekk loo xam ni ay protocole ak i partenariat yoo xam ni séq na ko ak maanaam ñi nga xam ni ñoom lañ séqal àdduna bi yëpp ci ay accords te kenn du ko yëg confiance bi Moustapha Niasse am moo tax mu dénk ko le président Macky Sall mais Macky Sall it gis ni kii liggéeykat la bi mu ñëwee e mu jëndal Sénégal presque huit avions A330 néew loolu ñu ne alhamdulilahi rabil alamin le hub aérien waroon a am nag en vol moom moo njëkk a lool loolu l' international Sadio Mané par Air Sénégal international ci di di diggante bi mu fi toogee ak léegi kon gis naa ni hormis li mu am ci yar ak ay teggin mais doon nit bu fekkente ni dañu bëgg a xam ban genre nit nga dañ naan nañ la laaj sa waa dëkk tey c'est le maire de Noto mënoo nekk un ministre am ay am am maanaam tey ja gëm-gëm te sa waa dëkk gëmuñu la mais tey waa Noto ñoo njëkk gëm Alioune Sarr parce que moo waral ñu dénk seen destinée kon loolu dañ ciy sant yàlla ci moom mu nekk nag suma wëllëre nekk suma xarit nekk suma lépp moom it ci ginnaaw Moustapha Niass rek lay nekk amut leneen Moustapha Niass rek. man nag sama xarit la sama wëllëre la mayit ma ne ñàpp ci moom ndax it eh, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax ñun bu ñu topp suñ Tuubaa pour mu jàllee lu la ndax it noonu la demee comme ni nga say biir wax ne nga ministère technique ñu gis ne jamono ji cas importé yi muy gën di yokk ci mim réew te gis defee woon na sax fan yee ñu génn gisuñ ko woon léegi moom Alioune Sarr génn na nee na dafay ubbiwaat li nga xamante ni front moo di frontière yi pour ñu mën a wéyalaat li nga xamante ni moo di voyage ndax loolu indiwul benn impact ci réew mi au fait euh, jërëjëf xam nga comme dañ dañuy alléger di wàññi ndànk-ndànk pour que nit ñi euh, mën di dellusiwaat ci seen i activité moo waral ñu ni kat ci wàllu transport interurbain nañu ubbi yolomal mais ci biir ubbi yolomal bi ñu wax leen ni kat mesure yi na ngeen koy respecter pour ñu bañ que ni euh, pandémie bi di gën di avancer ci réew mi mais loolu it bul fàtte ni on avait des compatriotes ay sénégalais yoo xam dañ nekkoon bitim réew ñetti weer yëpp ñu nga fa am ci ñoo xam ne ñu ngi woon Sénégal amoon seen liggéey bitim réew waroon a liggéey parce que ca la ñuy liggéey ci la yor seen njaboot mais ñee également aussi ca la ñu nekk ci la ñuy yor seen i njaboot ndax y a les GPF mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo yor wàllu yóbbante yi entre pays di yéeg ci avion yi ko wàcc am na ci ñoo xam ne ils ne sont pas du Sénégal tey ñu ngi fi bloqué wu am na ci ñoo xam ne ils sont du Sénégal il sont à l' étranger bloqué wu mais loolu su amee ñu gis ni war nañu mën a càmbar à travers les techniciens de la santé à travers les techniciens de la sécurité à travers tous les techniciens yi nga xam ne kenn ku ci nekk yaa ngi ci benn seeraay boo xam ne yow am nga fa xam-xam ñoo ñooñu bu ñu waxtaanee ba gis ni lii kat dañ ko war a def mais le gouvernement doit être à l'écoute de ces techniciens la xëy na la ñu waxtaane ñoom ca seen biir moo waral moom mu ni nañu yolomal pour que ñi war a ñëw di ñëw ñi war a dem def mais est-ce que du tamit est-ce du garaaw tamit ndax na fekk ñu ubbiwaat li nga xamante ne nii moo di transport bi dana indi jafe-jafe loolu dañuy ñaan yàlla rek xam nga kuy def moom da ngay sabab lu ñaan yàlla mu bañ a yokk mais gis naa ni nit ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy les concernés bu kenn ku ci nekk jëlee ay matuwaayam jël ay mesure am mën nañu rafet njort que ni mën na bañ a yokk c'est vrai que nag ñaari fan yi ñu ngi koy dégg mais ku ñëw it gis nga dañ lay teel a maîtriser ndax fàtte ni on a aussi Euh, un personnel très qualifié au niveau de l'aéroport ku ñëw ñoom matuwaay yi ñuy jël ba mettre la à l'écart mën lay suivre mais danañ la mën a danañ ko mën a euh, te alors kon li may gis rek mooy moo xam kuy ñëw moo xam kuy dem kenn ku ci nekk na nga xam ni ta part de responsabilité mu ngi ci biir yëf yi mu ngi ci biir yëf yi mais moom defu ko pour ñu pour jàngoro ji di yokk wala déedéet pour que pat ñëpp daal ñi nga xam ne ñun ñoo bokk Sénégal wala ñu fi newoon nañu génn kenn ku ci nekk nga mën a delluwaat ci sa liggéey calmement te dara bañ a xew. d'accord Bassirou jëloon nañ fi ay mesures yoo xamante ne dañ doon tëj lii di jàkka yeeg école yeeg yëpp lu ci bëri loo xamante ne nii ay nit ñi dañ fa daan dajaloo rek tëjoon nañ ko ñu gis na jamono ji euh, président Macky daal dinay wàññiwaat lépp loo xamante ni jëloon na ko jamono jooju ndax dafa dégg askan bi wala dafa ragal askan bi. non man damay ragal ni rek dafa am kilifa laay wax waaw dama naan président Macky dafa am kilifa ndax euh, ku déglu keroog bi xale yi tàmbalee manifeste alors euh, ba Touba am coow ñuy profité ci occasion bi ah, ci sa plateau bi di jégluwaat encore bu baax Serigne Mountakha Mbacké Bachir di ko jégluwaat nag bu baax ndax li fi xew keroog ku ne xam na ni rëcc rëcc la mais nag. jàpp naa ni moom ku ko xool ak reeju neex ja mu ànd keroog bi ko xale yi toppee naan ko maam jéggal ñu euh, reeju neex ja rek sedd na xol ba xam nañ ni jéggal nañu ñuy profité nag di ñaan lu mel noonu mu bañati am ci dëkk bi ndax du dëkk bi dëkk bi bindoowul noonu bi sëriñ bi génnee wax daf ni na ñëpp delluwaat ci biir kër yi tër yi ba suba ma xam lu ko waral ñu ñu def ci liñ ci war a def xam nañ ni kon wax naa candidat la président Macky Sall boo waxee ak moom président Macky Sall xëy ca su bëgg te ku ne xam na ni le boobu muy mardi bi ñu doon manifester ci la ñetti weer yi nga xamante ni moom la loi d'habilitation bi ñu ko voté waroon a jeex ci le deux ba mais le trois war a nekk conseil des ministres mais waroon nañu mën a xam ne conseil des ministres ay mesures dana fa génn mais ñu anticiper est-ce qu'il y a pas des gens tapis dans l'ombre ñoo nga xam ni c'est des mal intentionnés yoo xam ni jàmm ci réew mi arrangé wu leen ñoo ne ci ginnaaw kenn xamul. mais réew mi comme ni ma ko waxee woon ku ko bëgg a taal yaay tàkk. askan bi ñoo sës. en fait du ma ni sësuñu mais du ma nit sës naa sës nañ parce que ak loo mën di wuti ba tax ngay sës loo mën di ñàkk war ko wuti ba tax nga sës sa wérgu yaram a ci war a jiitu ndax buñ ko defaree rek ça veut soxla nañ mais yow boo wérul nan ngay demee di wuti mënul nekk da ngay tëdd kon ki nga xamante ni tey yow boo tëddee moom yow sa wérgu yaram moo koy gënal bosam. mais kooku am na cër boo ko war a sedd ci sa jëmm su la nee toogal xaar tuuti ngir ñu xool jàngoro ji fan lañ koy mën a téye ba du yaatu mais toogal nga xaar Macky Sall tëjul woon le gouvernement tëjul mais c'est les techniciens de la santé ak les maanaam la sécurité sénégalaise ñoom ñoo taxaw ni kat lii ñu ko deful mën na jur jàngo mën na jur. yaakaaroon ne mesures yi dañ koo teel a jël. yaakaaroon ne mesures yi ñu jëloon euh, yu metti yi nga xamante ni jël nañ ko bi feebar bi ne ca kii rek capp dugg ci réew mi yaakaaroon dañ ko gis nga buñ ko jëlutoon romb nañ fii bu yàgg te bul fàtte ni ñun suñu plateau médical bi am nañ une bonne expertise muy nos médecins là ay jàmbaar lañ que je salue au passage ñoom ñëpp nag ak la sécurité mais ñun ñu jàngoro ji réew yi ñu ëpp doole sax attanuñ ko kon ñoom bu ñu taxawee ni kat lii rek la ñu war a mën a def mais bu kenn ni dañ ko teel a jël déedéet ndax buñ ko teelutoon a def romb nañ fii bu yàgg actuellement on est à mille sept cent et quelques yoo xam ne ñu ngi leen hospitalisé tey rek ñu ngi à dix pour cent ñu ngi à dix pour cent. askan bi xaaj bi gëmatuñ ne feebar bi am na ndax ginnaaw wàññi gi nga xam te wàññi nañ ko mesure yooyu. ça le problème xam nga ñoom ñoo fi doon taxaw di yuuxu naan nañ ñu tijji nañ ñu tijji nañ ñu tijji mais ñu tijji leen mais buñ leen tijjee ba pare li lay war a sóoli nañu respecté mesure yi am na ci ñoo xam ne mënuñu comprendre jàngoro ji ndax virus bi day virus bu saay-saay boo xam ni capacité d'adaptation moo gaaw. mais mais wax nga dëgg ci ni nga ko waxee noonu sànq dëgg la mais teewul président moo génne on apprend à vivre avec le virus est loolu motivé wul Sénégalais yi. ba tax gëmatu xaaj bi yëpp gëmatuñu. mais apprendre à vivre avec le virus mooy apprendre à porter un masque à se méfier mais également aussi à respecter les gestes barrières. mais xam nga bu dara génnee rek kenn ku nekk ni nga ko comprendre nga ko. non ni ñu ko war a comprendre nag mooy réduire les déplacement inutiles muy wàññi ko muy également aussi le port de masque obligatoire mais également aussi la distanciation bu ñu ko defee rek dana ki xam nga des fois da ngay gis ñu naan la kee gaañu na fee mag la dafa feebaroon ba mu gëjee génn mat na juróomi weer nangu nañu nit mën na am problème tëdd at du génn fa mu tëdd mais ñaata nit ñooy ñëw di ko seet si di ko tiim. bu waa këram sax am na ñoom dañuy dem ca boutique ba jënd ñëwaat mu laaj ndox ñu dem jox ko ko alors que yow mi demoon ca boutique ba mën nga fa daje koo xam ni moom porteur sain la mu mu wàll la ko yow wala yow ngay porteur sain ñëw tiim màgget moomu wàll ko ko te yow doo ko yëg parce que yow porteur sain nga mais doo ci xam dara mag ma génnul demul dikkul mais yow lor nga ko te loolu moo fi nar a bari gis nga nit ñi nañu bàyyi bu football jotee Sénégal am 14 millions d'entraîneurs 14 millions de footballeurs su su course fas jotee Sénégal am 14 14 millions de jockey loolu nañ ko moytu ñi nga xam ni ñoom la seen xam-xam màcc jëm ci lii nee nañu takk ay masque mais takk masque yomb na même bu dul sax jàngoro ji mais xoolal boo ko takkee nga dem ba dikkaat nga xool sa sa baat bi sa put gi xoolal li nga naroon a aspiré ci poussière ak yooyu yëpp mais mu baare la ko mais loolu rek déjà baax na rawatina nag ñun la jàngoro ji lii moo koy stoppé bi ci toppit mooy mag ñi ko ci mënta takk masque mais nañ la wutal kol ak kaala nga koy kaaloo xool leen sëñ taxa fan yi buy kaalaw ba génn ci jumaa ji tu as l'impression ko ne Serigne Touba mooy génn effectivement mooy Serigne Touba mais nag boo xoolee ni muy kaalawoo sa yaram sax day daw te nag ñun amuñu lu dul suñu nit ñu baax ñi gis nga jamono bi fi choléra amee ba nit ñi di bañ naan amul di dëgërante bopp Mbàkke di toj. affaire bi nar a dugg Touba mais rahmatullahi alayhi Serigne Saliou Mbacke jamono boobu fi la ko fekk mais bi Eva Marie Coll Seck defee teleton moo njëkk a yónnee cent millions joxe ko wëlbatiku ñëw teg paanu raxasu beeg yëpp raxasuñu wane ko li ci gënoon ak yéeme nag mooy xëy na yéen mën ngeen ko bañ a xam wala ñu bari ñu amul culture générale dañuy fàtte loolu mais amoon na benn bassin bu mag bu newoon bin buntu kër sëñ Saliou ñu daan faroot mais sëriñ bi da koo toj raser ko parce que lan la bu ko fi bàyyoon donga yeeg ñëpp kuy jaar di jàll di tànk alaaji baara amoon na bassen bu mag bu newoon buntu këram ay grillage la ko mu mujj def baare ko ba kenn mënatula wut foofu ndox nga xam ne ñoom yàgg nañoo gëm tegtali way kër docteur lii nag sëriñ bi ñëw muy sëñ mun Muntaxa yëkkati ñaar téeméeri million am joxe wëlbatiku di kaalawu wëlbatiku ni nañu respecté li ñu waa kër docteur yi wax mais mënoo yaakaar nit ba pare bu la digalee doo ko def ñun murid yi nañu dellu ci li ma waxoon keroog ay taalibe lañu nañu dellu ci démbi taalibe jëfe ndigal tey bàyyi tere ndigal yi mooy nañuy takk masque nañuy dandante nañuy moytu déplacement yi amul njariñ yi lii rek moo ñu ci mën a génne ma ñaan sama mbokki taalibe yépp fu ci waay mën a nekk ci àdduna te di murit nañu respecté ndigalul sañ Muntaxa te yàlla rekk tax d' accord Bassirou foo mën nañu ubbiwaatuk école bi ñu naroon a def euh, le 2 juin ba la génn ban jàngat nga ci am ndax nee nañ ay enseignants yoo xamante ni 15 personnes ci ñoom dañ caa amee euh, Covid 19 bi. waaw man foofu man foofu foofu aussi xëy na peut-être le gouvernement daf doon bañ rek euh, ñu perte année bi ndax ku ne xam na ni xale bu jàng ba agsi fii bu sañoon def examen pour mën a am diplôme pour mën a jàll dans les classes supérieures alors bu ñu gisee nii xëy na. affaire bi amoon nañ ci ay pexe pour mën a ubbi école yi pour que xale yi jàngi def seen examen te bu ñu fàttee ni classe d'examen yi la waxoon ndax souvent dañ naan ubbi école mais dañ ko doon ubbi pour ñi nga xam ne dañuy defi examen pour ñu mën a defi examen alors malheureusement li fi xew li ci xew xew na peut-être que mesure bi ça a été un peu précipité ça a été un foofu aussi damay lancer un appel maanaam le un ministre c'est une personnalité morale au sein de son ministère mais ce sont les techniciens kii gère presque le gros du travail kon les techniciens bala ñoo waxati seen i patron lii ak lii nañu ko càmbar càmbaraat ko dañ lay faral di wax ni sax avant de parler il faut tourner sept fois la langue pour bañ a def njuumte ñoom it nañuy waxtaan di waxtaan ba peaufiner planifier mais tout en associant ñi nga xamante ni ñoo bokk ci secteur boobu yëpp affaire bi du maanaam man la je entre quatre murs bureau climatisé man maay réfléchiral ki nga xam ne il sur le terrain non kon yow d'accord pour ñu ubbiwaat école pour le moment nii nañu xaar ba ci kanam ba xam li xew lan la. blanche bi nit ñi fait man non parce que am na ay techniciens yoo xam ni xëy na bu ñu leen associé ci liggéey bi ñoom c'est des inspecteurs pourquoi pas même ne pas consulter les les techniciens de l'éducation nationale qui sont allés à la retraite mais ñoom c'est des hommes expérimentés. nañ leen convoquer parce que Sénégal ñun ñëpp ko bokk te ñoom ñooñ di ay techniciens dem liggéeyal réew ci njàngale mi ba retraité mais xaalis ba ñu leen doon faye impôt sénégale yi la kon bu ñu soxlawaatee seen expertise jàpp naa ni war nañu mën a ñëw wuy si ci appelu seen peuple te ñoom it ils sont prêts ni ma ko waxee ci côté éducation bi waxee ko ci côté sécurité bi mais également aussi noonu laa koy waxee ci côté santé bi parce que les techniciens de la santé nañu góor góorlu ba la ñuy wax ak seen kilifa muy le ministre Abdoulaye Diouf Sarr que nous félicitons que nous encourageons au passage nay doon lu ñu xam te it ñu koy jàppale ndax it nag jàngoro ji demoon nga ba dégg ñu ni ku ci am ay symptômes rek dañ lay quarantaine sa biir kër wala dara mais loolu wuur mais xam nga lu indi loolu parce que tey demoon nañ ba hôpitaux yi tàmbali fees amatuñ fu ñu tëral nit ñi ñu jël site hôtelier yëpp def leen ay sites réceptifs mais ñooñu nga xam ni tey ils ils sont sur le choc mais c'est de véritable patriotes parce que bu ñu leen laajoon seeni hôtel sans rémunération man xam naa ne mën nañ ko joxe parce que c'est des sénégalais mais nag le président de la république très conscient xam ni ñii kat lii ci la ñuy dàq seen wërsëg pour mën a yor seen famille du leen seetaan mu engagé wu ak ñoom. ñoom it ñu joxe seeni i hôtel am package bu ñu signante kon nag ñoom ñooñu nga xam dañoo nekk sur le choc psychologique mais également sur un choc matériel parce que hôtel bi buñ fàtte ni bu jàngoro jeexe dafa war a continuer mais après nan lay demee kon ñooñu ña nga xam ni ñoom ñooy séq ak ñoom la ñuy séq nañu respecter seen i engagement ak ces responsables d'hôtel là pour que ñu mën a continuer yàlla na fi jàngoro ji am nag mais di recevoir ñi nga xam ne ñoom la yàlla nattu ba jàngoro ji dal leen nan ñu respecter ñooñu ba dara bañ a dox seen diggante ak ñoom. aussi lu ñu wax ci leneen gis nañ ne tamit des fois da ngay génn def ay vidéo yu tàng tàng jëmee ko ci maire bu Touba sa relation ak maire bi naka la demee. dégg nga mu da ngay def vidéo yu tàng bon. jëmee non mais xam nga maire suma xarit la moom suma mag la sama xarit la sama dëkkandoo la parce que ñoo bokkoon dëkk xayra alors du vidéo yu tàng gis nga. xale soo ko daan yónni bëgg mu gaaw bu yeexee bu ñëwee noo koy def waaw yaa ko wax mais dóor boobu dóoroo ko pour mitital ko mais da nga koy jàngal rapidité ak efficacité ci lim luñ ko sant man maire suma xarit la et du maire du Lahat Ka c'est pas la personne de Abdou Lahat Ka mais yàlla a le conseil municipal moom mooy la mairie c'est le conseil délibérant qui qui qui qui gère tout parce que le maire dañ koy day am xalaatam le conseil délibérant muy les conseils am seen xalaat ñu daje dans un conseil muy le conseil municipal ñu décider bu ay manquement amee dëgg la moom moom moo nekk à la tête de la mairie mais am na ay collaborateurs moom aussi li muy nekk nekk ci bopp mairie bi il a ses collaborateurs ndax y a des commissions commission santé commission transport commission assainissement commission éducation pour ne citer que ces commissions là commission jeunesse aussi alors tey jii ñoom ñëpp kenn ku ci nekk soo defoon sa liggéey yaakaar naa mairie bi du am problème du ma ni maire mais mairie bi parce que dañ naan la mairie mais attends bi maanaam tey jii nous sommes à moins de trois mois de l'hivernage non nous sommes dans l'hivernage même. ñu ngi ci am na yenn gox yu commencé taw. waaw mais kon tey jii ñoom seen équipe municipaux yi waroon nañu mën a engagé wàcc sur le terrain inondé mais tey ñoom commission bi yor loolu dem taxaw waa quartier ba gis leen ñu waxtaan ak délégué de quartier bi waxtaan ak jeunes yi femmes ñu réfléchir quartier ba nan lañ fa mën a def pour mën a atténuer loolu ba du amaat heure bii waroon na fekk ñu romb loolu bu yàgg est-ce que def nañ ko xawma bi ci toppit éclairage public bi ñu saluer au passage Touba ca kanam def nañ liggéey bu am solo ci éclairage public bi mais tey jii waroon nañ leen gis à longueur de journée ci tali bi ci fu mu mënti doon ñuy nekkaat ci entretien lampe yi pour éclairage public bañ am problème mënoo nekk ci période pandémie am problème inondation am problème mu mm, électrification mais day gën a day gën a métital nit imaginez tey nit nekk ci nawet ba di ko waaj a génn moo xam mais jàngoro ji jaxasoog siburu xoolal lim mën a créer yàlla bu mu doon nag ka dal nekk ci zone boo xam ni ambulance bi ni mu mën a dawee rapidement jël nit ki ambulance bi du ko man yàlla bu mu doon loolu mais kon loolu mooy li may wax mais maire engagé wu na man xam naa waxtaan nañu. engagé wu nañu mais liggéeyuñu. au fait du ma ni liggéeyuñu ñu ngi liggéey mais dafa am ay blocage des fois xam nga des fois nag nit ñi aussi am benn interprétation ci nit ki gis nga nit doo am interprétation ci nit da ngay xool liggéeyam nga xool la ca am solo la ca amut solo mais diwkat noonu naa ko dama koy attaqué nu ma neex déedéet du noonu. mais moom it moom it le maire na am esprit d'ouverture di déglu nit ñi di waxtaan ak nit ñi pourquoi pas même di créer ay conseil de quartier chaque deux mois mu ànd ak son équipe ànd ak le sous-préfet ñu wàcc ci benn quartier. mais comme que la pourquoi pas demoo expliquer ko lui. bon au xam nga tey jii mën nga fa dem doo ko fekk nga demaat fa doo ko fekk nga woo ko téléphone doo ko jot bon man maa ngi wax ak koo xam ni collaborateur am la. di ko jox samay xalaat parce que nag man aussi dafa am nu ma yàlla bindee man dafa am nu ma yàlla bindee noonu ma yàlla bindee nag dama ciy sant yàlla ndax ñun ñëpp nous sommes des talibés te pare nañ pour joxe suñu expertise pour dëkk bi parce que sëñ Touba lañ yaakaar ndax suñuy waajur sëñ tubaa lañ am te ku ci faatu Touba gi nga bëgg ñu denc la fi kon suñu expertise pare nañ pour joxe ko ndax li ñu xam bëri na mais Touba lii problème bi mooy euh, Touba gépp benn maire yore ko. est-ce que duñu réfléchir ci ay angle créer ay commune d'arrondissement comme ni mu amee ay police d'arrondissement ndax gis nga tey ndaamaatu gis nga ñaari pneu maa ngi saluer au passage le commissaire Thioban ak ay élément am gis nañu engagement bi ñu def ci couvre-feu ak jaxate le commissaire Bassirou Sarr compagnie gendarmerie bi ñoom ñëpp liggéey bu am solo bi ñu def tey jii bu fekkonte ni tey dañu woon benn camp gendarmerie moo fi am wala benn commissariat est-ce que danañ matali liggéey bi yëpp déedéet mais noonu ñu créer ay police ay ay police d'arrondissement mais noonu la ñu war a créer ay commune d'arrondissement ndax Touba dafa amoon statut village jóge ci statut village am statut communauté rurale jóge ci statut communauté rurale am statut commune mais tey Touba war na mérito statut de ville comme ñu naan la ville de Dakar la mairie de xalifa Sall ex après da ngay gis ay commune d'arrondissement yoo xam ne yu bëri ay Médina Dakar Plateau mais tey Touba àgg na foofu que ñu réfléchir xool ba xam dañuy def benn découpage administratif boo xam ni dañuy cartographie Touba la ñuy xoolaat xool ñan ñoo mën a ànd ñu defal leen commune d' arrondissement léegi nag ci biir commune d' arrondissement boobu mais ñu xool ban commune d' arrondissement mooy gën a liggéey su boobaa la mairie de ville la day existé waat ba nëgëni nga xam ni le conseil municipal bu mag bi dañ koy defee ji ca mairie ba mais kenn ku nekk zone ya nga nekkee nga nekk fa yow ak sa conseil municipal. lii bu ñu ko defee jàpp naa ni problème yu bëri dana jeex ndax Touba doonatul une ville d'ailleurs dañ naan un pays dans un pays Touba est un pays dans un pays donc lii daal laa xalaat ni bu ñu ko defoon dana baax mais awma benn préjugé bu bon ci maire wala dara man bu ma deen wax rek ci ko dama naan la mairie te la mairie c'est vrai c'est le maire le conseil municipal l'administration de la mairie même les bonnes volontés font partie de la mairie kon donc ñun ñëpp ñoo war a xalaat pour liggéey man bi ñu ci mujjee waxtaan man ak moom du ma ni waxtaanuñu woo na ma ñu waxtaan ma expliquer ko sama xalaat mu nangul ma ko xam ni lii xalaat bu rafet la mu jëm ci dëkk bi par la suite gis nga li yàlla dogal pandémie bi am kenn talatu ko ñu koy remercier nag aussi parce que il a décaissé 200 millions pour appuyer les populations en termes de denrées alimentaire loolu it sant nañ ko ci gërëm ko ci te koy ñaanal nag mu gën a am vision ci mel noonu le social le social waaw mais mais le président de la république sax dañ naan ko gënal la liggéey ça veut dire que mu ngi liggéey mais gënal la liggéey dafa am. macha allah Bachir waxtaan bi am na solo li olof naa li dugg si nag bi xajul si siin bi instant bi nag waxtu xaj nañu dañuy def rek lu du bàyyi la nga daal di tàggatoo. waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm mboolem internet yi nga xam ne ñooy suivre 24 actu euh, di leen encourager aussi tey ñaan yàlla jàmm sax ci réew mi. jàngoro jóge fii ci jàmm mais du ma jeexal nag te ndax yéen jigéen ñi dañu nekk ci période fête des mères may ñaanal suma yaay ja nekk àllaaxira yàlla xare ko aljana mais sama soxna si fi des di sama yaay muy Kumba Njaay moom it yàlla gën ko fee saxal moom akuk njabootam ma bëgg nag ñëpp ñaanaleele ma ko mu yàgg fi lool yàgg ci suma wet ñu ànd jaxasoo ndax xam naa ni yéen jigéen ñi su ngeen déggee lool di ngeen ni responsable bi ku jar a jàppale la ndax mu ngi tagg jigéen ñi kon nag maa ngi tagg seen moroomu jigéen yàlla na ko yàlla taxaw jàppale ko aar ko musal ko ci saytaane musiba balaa làmmeñ ca teg bët musalaale ci mbooleem jigéen ñi bi jaay Seydina Mohamed di remercier aussi di encourager sama ministre de tutelle la ministre Alioune Sarr nga xam ni vraiment euh, engagé wu na te ba engagé wu léegi ci côté taxawul. di ñaanal le président Moustapha Niass ak le président Macky Sall yàlla defal leen jàmm ci réew mi ñaanal sëñ Mountakha salaamaaleykum wa rahmatullah merci beaucoup Bassirou Gueye gis ngeen ko tey moom lañ dalaloon seen émission seen entretien waxtaan bi am na solo ñu di ko gërëm nag bu baax a baax ci disponibilité bi nga xam ne am na ko ñëw daal ni si daan na fi indi ay éclaircissement yu ama ama solo dañ naa li dub si nag bi rek xajo ci cin li dañ koy dig daje rek ba ëllëg ak jërë ngeen jëf